réew bu jóg ne ñett ñeent ministre am ba ay personnalité yu bari wër leen ñu jóg loolu ñooñu li leen yëkkati lu leen soxal la ñu nit senegal daanaka noonu mbir mi soxalee bi noonu la soxalee Sénégal ndaxte problème bi du gouvernement bi wala gouvernement Sénégal problème bi mooy suñu réew yi suñu askan ak seeni ëllëg ku xamul garab nu mu day ci biir àddina wala ku xamul garab nu mu dee ci biir dëkk dangay dem fu garab amul boo demee fu garab amul wala nga dëkk fa rek man mi dëkk Podor mun naa ko wax ngeen xam ko kon di ngeen xam garab naka la tollu ci tolluwaay nit ci dundinu nit ak ci askan wi moo tax bu ñu seetaanee ba loolu ñu desee ci ay garab loolu ñu desee ci àll mooy ñun ci suñu côté sud ak ñoom waa Gambie bu ñu sàgganee xool ba loolu dem te dara du ko waral lu dul ay nit taxaw rek ne ñoom seen koom-koom seen am-am ak seen alal fa lay jógee ah bu ñu sàgganee kon lu rëy rëy dinañu daal loolu moo tax suñu ñaari njiitu réew yi président Macky ak président Adama Barrow ne lépp loo xam ne dangeen ko taxawoon am si jumtuwaay pour mën a xeex loolu ñun xeeb nañ ko nangeen ko dolli soo gisee daggum garab. muy dem ba ay président di ko waxtaanee dafa fekk mbir mi jégg na dayo du benn garab rek keroog maa ngi li rapport bi may ambassadeur seen mi toog di ñu toogal fële ci Gambie di ma yónnee bés bu nekk ci rapport yu may yónnee li ci gën bëree ay mbirum coupe di bois la may wax dagg garab la may wax mais boo toogee liir ay mille neuf cent tronc mooy deux mille yuñ dagg bu ci nekk boo jëlee diamètre ñu ne nii la toll bu ci nekk buñ ko daggee war koo war koo jëmbataat mu sax 40 ans lay doon kenn du ko fekkee ak lu ñuy bëgg dund yépp kenn du ko fekkee waaw loolu ku ko yàq pour man criminel nga foofu rek lañ la war a àtte parce que toll nañu foo xam ni rey garab presque dina méngoo ak rey nit du ñu yem dina méngoo parce que boo reyee garab nit ñi ngay sonnal ñoom ngay toroxal looloo tax nag ñaari njiitu réew yi ne loo leen mën a def pour di ko xeex ñun xeeb nañ ko dolli leen te soo leen gisee ñun ñaari ministre affaires étrangères yi ñu nekk ci kanam dafa fekk réew réew bu ñuy waxtaan rek affaire étrangères ay taxaw mais mbir mi ñu mu gën a soxal mooy intérieur mooy forces armées mooy justice balaa sax environnement parce que ñi koy def ñoo ñu ëpp doole. ku ko xamuloon nang ko xam jumtuwaay yu ñu yor matériel bu ñu yor moyen bi ñu yor ñun réew yi presque amuñu loolu loolu tax nag ànd bi jàppante bi pour mën a jàmmarloo ak ñooñu nga xam ni c'est des délinquants internationaux ñoom ñooy ñu di def trafic wande aussi waxtaan wax dëgg ci la trafiquants internationaux yi buñ mënee ba dugg ba sax dafa fekk dafa am ci ñun ñoo xam ni leen di jàppale ñooñu dañ leen war a xeex loolu loolooy indi ministère intérieur di dugg pour loolu renseignement yuñ si mën a am rek ñu mën ko am lu teel suñu force de defence et de sécurité yi taxaw bu ñu leen jàppee yóbbu leen justice justice teg leen li li nga xam ni moom lañuy ñuy yellool pour ñu mën leen sanctionner donc lii tax suñu waxtaanu tey bi mu nekk waxtaan bu am solo.